ok cardinal bi waxoon na ma ne bu leen ma woyatil yooyu woy parce que man nekkuma koo xam ne dangeen may woyal pour ma mën a ñëw wax ndax li may def damay joxe parole sacrée bi rek lay joxe ak li nga xam ne moom lañu ñu war a def ci carême bi waaw fan yii nag wax dëgg yàlla kooru ren gi carême ren bi ute nag carême yi doon am ci ay at ci ginnaaw ndax ndax ndax ndax ndax carême bi tey dañu gis ne wax fa dëgg yàlla nit ñi sax commencé nañu dem ba comprendre ne chrétien yaa ngi ci biir jullit yi mm-hmm. kon am na loo xam ne bu ñu koy faral di wax nañu ko sóoraale nit ñaa ngi koy sóoraale léegi xam nga loolu dafa baax ndax kenn ku nekk yaa ngi def dialogue islamo-chrétien diggante jullit bi ak jullit bi waaye bokkuñu yoon ci ki nga xam ne mooy kenn ku nekk sa yonent bi nga topp waaye wax fa dëgg yàlla tasaare fépp ba ñëpp daal di ànd bu def li nga xam ne moom nga bëgg barki dem ba dama wax ak sama dëkkandoo yi ne leen man de wax dëgg yàlla ci église bi laay xëy di dem waaye comme que dama xëy def carême bi jékki-jékki rek dégg ñaaña ñang ko mooy jigéen bi ma jëlool kër naan doom ji boo jógee nga jënd farine ak tomate ma ne waaw kii de xanaa dafa am lu muy defar farine ak tomate xanaa beñe la sama xel ñaaw tuuti mu jékki-jékki ne xollit pombiteer bi ma ne ah pombiteer xam naa day def beñe waaye tomate ci jaaxal ma jekki jékki dégg mu ne utal ma ne kii moom xanaa lu muy toog sama bañ bi lay toog ma jékki rek dégg mu naan domadaa bi bu pare te man wax fa dëkk yàlla domadaa mooy li nga xam ne bi ma nekkee tout tànk ba tey fu ma fekk rek def may won jikkoom ndax dama ko bëgg ci gaaw a ñoram te mooy dem paasam ba pare dooma daa daa oyof loo am mun nga ko togg est ce que xam nga ne dooma daa la man loolu rek tax ma bëgg ko ndax mu dee ceebu jën ceeb bi jën bi roof bi maka lu ne nga def ko waaye dooma daa ke kese ngay am ak tomate rek dem naa nga suur rek mu de daa day pare waaye yàlla bu mu am ay uy ba diwlin baxeli ba muy bax ci kaw bu la fekkee ci karam bi moom da ngay génn rek war a xam li ngay def waaye nag wax dëgg yàlla ñaaña ñang ko bi ma déggee mu naan doom ji taalal doomu daa bi ci laa ne xaaral ma génn kër gi parce que du ma ko bu fi bàyyi ma ko ko fii taalee ma toog fi man daal xippe xippi ma taxawee di ranger sama bagage mu naan ko ndax ñuulum nga mu ne waaw kii moom xanaa doomu daa bii daf ko bëgg def balaa may génn kër gi man daal fi may xippe xippe sol sama daal di ko laase mu commencé box box yi wallaay tomate bi nga koy dégg muy box boxi nen box box ndekete ñaaña ay bulet lay defar daa dee toog déggatuma baatam ma ne xam naa ne dafa gën ndekete yoo maa ngi dégg mu naan xale bi saafal bulet yi oui bulet yi yoo xam ne yabooy dañ ko defi nga xam ne day judd bi ma jékki-jékki rek dégg mu naan ko jambal Dakar ji jàmbal Dakar ji jàmbal Dakar ji ma ne xam naa fala la koy yemale ndekete am na lu gën a forox Dakar loo xam ne maa koy jàmb mooy bisaab bu weex bi. ma ne nag kii du ko fi xaar laase samay dal tak sama saak dem bay génn rek mun a yàq leen. oui bi muy wax yàq leen kay diwlin ka génn na ba jooy pomme bi baax baax yi ba ñor ba tas. waaye bu mu ci defee kanje kanje kanje la ci def kanje kanje waaw kanje kanje la ci tembal bu kanje la ci tembal kay yooyu kay bu neexul ma neex na ma kanje kanje la ci tembal te ko ci ne car kambe kanje gi di feeñ di gën di feeñ ma ne waaw lii kay kii kii dafa xanaa dañ ko wax ne man kanje def maa neex ndax man loolu tax bay ba ndang di dem rek rek an naa moom ma jékki-jékki rek ñaa ñaa ña ko ne ma am sa añ ma ne ko dama kare mu ne ma añ ko balaa mu set ma xool ko yër ko kañ gi xool ma bule bi mel ne bëtu xar di ma ragaju naan ma yow xanaa doo lekk eh moo taxit maa ngi wax ñaaña ñang ko di wax cardinal bi dinaa dem ci moom ne ko mu tuxu ndax man maa taxu diggante église bi kër gi ñoo jàkkaarloo ñaaña restaurant am bi ñoo jàkkaarloo waa léegi man ma bëgg a carême moom ma bëgg a doomadaa te mënul bàyyi doomadaa man mënumaa bàyyi sama carême waaye nag ba mu ca defee ba ma ibbee ba gis supame bi muy si meeku ma xool ko gis pataas bi di xeex ak di xeex ak loo pomme de terre bi waaye moom ca defee limon ba ba limon ba fekk ci daqaar ba daqaar bi fekk ci bisaab bu weex ba sama gémmiñ gi tooy xat mel nekk sapeur pompier yuy roose foofu doon takk waaye neexul ba neexul wax fa dëgg yàlla di woor di xeeñtu dooma daa bu dee man la abe man la